gaay maa ngi leen di bëgg di leen ziar di leen jàmm ak tawféex gaay nee nañ Sonko du la waay du la waa Touba def ba maanaam ministre yi dégguñu diggante tuubaa ak Mbacké mais bu fekkee ne parpar loolu Sonko bëgg a yore réew mi moom maanaam Touba ñoo war a ëpp ay ministre bu fekkee parpar loolu bëgg a yore réew mi Touba. gàtt gàtt war na faa jël dix ministre waaw bu fekkee ci par par loolu ko bëgg a teg mais bu fekkee nag da koy teg ci norme maanaam ñu waxante dëkk tey Touba xaw ma leader yi fa nekk xaw ma allié xaw ma nan laa ko mën a waxe kan lañ ci mën a jël def ko ak ministre ak ci ban niveau. la pratiquer bañ mën koo def ministre néew ma leen nag amu fa de déedéet na leer bu dee député man nañ ko am Touba bu dee mairie <laughs> def laaj loolu jëriñu yi sori mais nag ministre yii ñu fal nii ñi nga xam ne ñi ngi Touba di ay Pastefien kan moo am niveau boo xam ne ci ci ci ministre yi ñu fal néew ma amu fa nag na leer mais am nu mu mën a demee rek man damaa jàpp ne bu ngeen di xalaat war ngeen a xalaat ne Sonko lii mu teg du parparloo te bëri na eh, ñoo xam ne tudd nañ leen ñoo xam ne Sonko tudd na leen da doon càmbar Sonko képp ku mu jël ba bëggoon laa def dara day gëstu ndax mas ngaa sàcc alali jàmbur ndax mas ngaa amalanteek yoon ci dem ak dikk ci alali jàmbur muy gëstu. di gëstuloo ñi la xamul di gëstuloo ñi la xam lu leer nañ la leen wax léeg-léeg ñu ne càpp koo xam ne ñëpp dañoo jàppoon ne force day nekk ministre ci nguur gi mu ne jubut wala mu ne même bu ko xam-xam bi matee bopp bi responsabilité bi matewu ko benn ci ngañ jëmbature yi ñun ñëpp dañoo yaakaaroon na mën naa doon ministre en tant que nag dof yi jub naan ay Cheikh Bara Ndiaye noo ban daal Sénégal jaaxal na ma quoi Cheikh Bara Ndiaye lu xam ci ay ministre bañ nako ko ba daa toog waxal ko bopam ne man xawma ci ministre dara non la tooge ne ku melni Cheikh toro Mbacké niveau comme walu politique sori wu ci lol Cheikh Bara Ndiaye ko wax mais kon nañ bàyyi parparloo bi te xamni ne mi dafa wara teggu ci dëkk Sonko felut ay nit ngir ay parparloo bu doon parparloo Touba bu ko neexee mu jël fa 10 ministres mais ñi mu fal dañ leen ne yortu ñi beut fas yéene ànd ak moom liggéey bi aywa amul ñol ñol amul jadd jadd mais ba leen affaire yi saytaane yi naan Sonko ak waa Touba waa Touba rusuñu de waa Touba tey jii lañ gën a kontaan ci Sonko parce que xam nañ ne parparloo bu doon par parloo Touba ay ministre danañ fa génn mais ministre yii nii mu fal ñooy ministre yi ñaa ngi yor seen bët di leen xol loolu mooy wax ci ba leen seen affaire yi saytaane ak tappale yi ngeen bëgg a nekk ci réseaux sociaux yi